aleykum salaam wa rahmatullah Salam Vision ñu ngi sant yàlla bu baax di nuyu jërë ngeen fi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne Salam Vision vision mooy xam te vision wax vision problème suñu xel sax dafay dem ci télévision télévision mooy xam te Muhammadiya salaam kon ñu ngi. donc fii ci soppe yonent bi sallallahu alayhi wa xam ne cëram ci yonent bi cër bu loolu xam ne képp ku xam xaqiqat bi Muhammadiyya ndax chaque année yow da nga xam cër naa sa njaboot yi maanaam ngir maqaama bi xam ne moom la ko taxawee ñu ngi taxawal na kon ci buntam bi nuyu yonent bi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jaarale ko ci moom yow ne jàmm xel bi di wax ak yéen Mouhamed Niang la tudd ñu gën koo xam ci Pape Niang waaye daal doon na ko a ñu koy wooyee rek dofu Thierno Assane Seck ndax ñun Thierno lañ bëgg daal nga jëg si tàgg te lépp lu ko bëgg si moom Thierno ñu dañu wooyee wax na sax ñun dañu bëgg Thierno daf rek mel ni la daal ñu wax lu leen neex ngir xet bëggeel bi nga xam ne ñu moo ñu bëgg Thierno Assane Seck la jëlaamu ñun moo ñu yar soxna mi nga xam ne moo jur jaamu yàlla bi nga xam ne moo leen indi fii muy Seydi Ali Harazim yi xam ne ni mu ànd ak yéen sukk ci kanam ceeb ni mu joxee dog ne xaal fi nga ngi jeexal sama rakkaabu mujj waaye duñ ne Faatiha nañ jàng Faatiha jumaa ji ngay dégg ñoom ñu ngi ziaral seen partenaire ci rajo bi loolu mbooloo mi naan amiin ma xam ne yéen seen ziara na ma yéen benn sikk sax seen daal yàllaas yi mii nag um doon sa bunt am nga seen daal yàllaas yi mi nga a benn intermédiaire kooku mooy bi nga kenn ku dul moom loolu wutaluma kenn ku dul moom kenn sama xalifa ku dul Seydina Aliou Razim bu ma xuusoon nag si Seydina Aliou Razim dama gis ne doy waar la ndax maqaama boobu nga xam ne mën nañu askanale Cheikh Ahmad Tidiane maqaama bi ñuy wax xet bi maanaam maqaama yi ak noppi bi ñuy wax maqaama bu nëbb boobu nga xam ne Thierno ak ñi def fii ci biir kër gi dañu koy féete di maanaam mooy guddi gi nga xam ne ci la ko yàlla jotoon man xamal te ñu nekk li boobu yëpp nag ci àndu tànn ci as tuut kooku moo doon Seydi Hadji Haliss moo ko fekkee woon ca Arafa kooku nag moom la sa dem di laaw léegi kii nga xam ne moom ngeen a tey waaw kon nag kon boo gisee ci waxtaan ci waxin woo xam ne mun nga ko mën a misaalee ci mën nañoo wax ne tout tànk la ndaw la waaye ku màggal yàlla kooku mooy màggal ma te kii wax ak yéen ci loolu xam na li muy wax may wax xam naa ko bu baax moo tax kon ñu waxaat alhamdulilah rabbil alamin julliwaat ci bi sallallahu alayhi wa ci buntu Ceerno Sëñ Bada Mbow salaamaaleykum yàlla ñu ubbil laaj bi ñu laaj waaye xam ci place leen ca kaw rek incha allah ca kanam rek incha allah weer rek incha allah. macha allah jërëjëf ñu ngi leen di neex na donc macha allah bi ñu question la boo xam ne question bu yaatoo yaatoo yaatoo. boo ko posé nit rek ci saa si mën naa gëlëm ngir lan mooy babax nga ko ci géej goo xam ne océan boo xam réewam ci àdduna bi océan géej boobu kon dafay gëlëm moom kenn mooy Thierno Sène dafay gëlëm waaye ci misaal bi ma lay ne géej la wala ciy jox benn kii bu ndaw rek benn anecdote bu ndaw euh, ba ki démb rek damaa toog fii ci kër gi. benn mbokk alpulaar boo xam ne ku yàgg Nigéria la ku xam Nigéria la jaxasoog waa Nigéria dëgg la nga xam ne Thierno fekk na yoon mu ne ki ñuy wax Mahmoud Salga ci kilifa yi Nigéria yi la bokk dañ ne ko Thierno Assane Dem bu ne leen wax dem ne ci awsa mooy géej yaatu Thierno Assane Dem radiyallaahu anhu géej gu yaatu la boo xam ne amul frontière moo tax wax ci dafay defe loolu waaye wax ci tim nag mën naa yomb lool waaw ndax moom Thierno léppam xam-xam la léppam mbaax la léppam leer mu doon koo xam ne multidimensionnel multidimensionnel la multidimensionnel la suñ ko waxee mooy koo xam ne tey ci wàllu xam-xam dafa xam lu bëri bañ mën koo méngale ak entrepreneur dégg nga multidimensionnel soo ko waxee da wax nit koo xam ne tey suñ demee ci diine ji dégg am na xam-xam mu ngi jëfee xam-xam mu ngi nit ñi ci xam-xam dégg nga mi ngi jëfee diine mi ngi dimbali diine waaye nit la koo xam ne tamit ci wàllu social da ko cay fekk ci wàllu économie da ko cay fekk. wàllu environnement da nga ko cee fekk loolu yëpp mu ngi ci Thierno Assane Demba Diarra donc kon moom vraiment fu multidimension la léegi nag bu ko defee la neexee nag léegi ñu dugg ci pàcc pàcc waaye boo jëlee Thierno Assane Demba rek ñu globalement yaakaar naa doo toog doo mën moom lu ci nekk rek day jënd lu ci nekk rek daf caa dayoo waaw kooku mooy Thierno Assane Demba Diarra waaye nag bu ñëwee woon tey. ci expliqué maanaam moom mooy kan ci juddu yaa ngi moom mooy kan ci juddu euh, moom mooy kan ci ci ci ci ci taalibe dégg moom mooy kan ci ay diplôme ak ijaasa yooyu moom mooy kan ci sëriñ maanaam sëriñu jàngalekat moom mooy kan ci sëriñu yarekat waaw bu moom moom mooy kan ci juddu. Thierno Assane Deme yàlla ko tànnal ndey ci wàllu ndeyam ay boobu xam lañ ay boobu judd lañu rëy dégg nga ci wàllu tamit euh, ci Fuuta gi nga xam bi nga xam ne ñoo fa ëpp histoire nga ci ay nga nga xam ne dañ doon wante ay daara doon wante booyoon Thierno foofu la foofu la juddoo. ci loxo kon moom euh, ci wàllu juddu euh, macha allah tànneef la maanaam yàlla tànnal na ko ay ndey tànnal na ko ay baay comme na nga xam ne noonu la ko doon tànnalee lu baax ñu njëkk ña te noonu la ko xal xam euh, la ay baay di la topp ngay wëlbatiku say diggi baay. de génération en génération di egg ci ci Abdoulaye kon loolu la bàyyi di koy ci Nourou Bachir bi nga xam ne moom la ñu fas yéene gàmmaatu tey wax naan Nourou Amady Moussa Diouf juuram te ba suñu suñu ba di fi la maison fi ci fil kaw ni baadan ci xaadim léegi ba mu feeñ ci ci Abdoulaye ci am moomu noonu ko yàlla ay bàyyi ci ay maamaati maam mu juróomi téeméer ak ci bañ dugg ci. nit ñu weex ñi arab yi parce que ñoom seen famille ci nit ñu weex ñi wax ne ñoo ko famille Muammar al-Kadhafi ex président yi bi boobu noonu ñi nga mën a tudd ay kilifa yu bëri ba ci Nigéria boobu ñuy wax soo demee ci empire bi ñu wax empire Sokoto seen waa boobu nga xam ne yooyu yëpp daan ngeen def histoire muy Ousmane Dan Fodio ci famille Thiam ak seen benn kii boobu kon moom su daal ci gàttal. waaw juddu bu rëy a rëy rëy la bu ko defee nag euh, tàmbali naa jàng ci kër boobu nga xam ne fa la juddoo alxuraan dañ paree ko dénk sëriñ ci jamonoom ci Fuuta ci mboolem ko wax Thierno Seydou Sola kooku moo ko jàngal euh, ba nga xam ne mboolem fànn mu deseloon li mu deseloon Thierno daal. mooy xamal ko yàlla waaye comme ceeb sëñ Soba koo xamal yàlla am na keneen koo xam ne mi ngi koy xaar kooku mooy kan mooy ki nga xam ne mooy nit yàlla yëpp moom lañ amal bànneex te a jàkkaarloo ci la ceeb sëñ Soba jugee Sénégal jugee Fuuta te collègue mu nekkoon Thierno kon bi nga xam bu teewee yow bu muy dem tamit moom eesal collègue boobu si càmm daal dem waaw càmm Seydou Thiaw dem na te doo fi dellu si dégg nga bu defee nag ca demam dem fan ñëw dañuy jëkk wala na Cheikh Ibrahima Sow Diawara kon dañoo lem lem eh, ci seen tuuti moom ma nga ca Barza moo ko xamal ne ko. yow ki ngay xaar ki mën a xamal yàlla kan la mooy Cheikh Baye mi nga xam ne ci kaw suuf am ku ci gën a xam yàlla te kooku moo am diggalal xamale yàlla dégg nga bu ko mu daal di ba yow yàlla du ko sottal ginnaaw bu di am lu ko wax nekk ca en attendant muy dox seen jëmm yi fii ci Medina ba ngi ci dégg nga mu ànd ak Baye Niass radiyallahu dégg nga ñu ngi fii ñëw ay di génn àdduna ñu ànd ànd bu rafet maal ko xit ma boo xam ne xit ma bu mucc ayib la ma boo xam ne sëriñam mu ci lamante wu noonu la dafa mas a gërëm ñu maal ko ci lan ñu xit maal ko ci kursam xit maal ko ci xalibaam xit maal ko ci xam-xam waaye waaye Cheikh Ibrahima Islam ñu fàttali ko ne ca lekk bu njëkk ba ko ceeb na jël bindoon booba ceeb na nga futa waaye da koo wan ne ko da nga yow sama doom la nga ci nga xam ne ñoom ñoo ëpp sama lekk nga xamee ne nekk na ci fanam yooyu noonu nga xam ne ceeb mu génne ci xalo rek dugal na ci xalo mu génne ci xalo yooyu nga ci xalo yooyu daan na ko seen doom bàyyi di ko partagé ci ay laata di ko ci tontu man nekkal na ci benn rek bi nga xam ne moom gént na gis ñaar mu daal di gàmmu ko song ko ko xotti biir bi dégg nga bi mu paree mu ko man lii laa gis lii laa gis lii laa gis waaye du bégal lii bégle moo xam ne képp koo xam ne xal ngaa doon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla dana la bégal ci ni nga xam ne yonent bi xotti woon na biir bi jàmbu xeebu bii moom bàyyi mooy wax mooy wax ak ceeb bi mu ne ko man mii mii. gisoon naa ko ngay door tàmbali kon ñu xamee ñu ne lii képp koo gis rek xamal ne da nga doon yonent kon xalifa yonent bi moo tëdd nii xalifa Cheikh Tidiane nii xalifa Cheikh Banis moo tëdd nii kooku mooy Thierno Hassane Deme radiyallahu ci gàttal ci juddu ci jaaru ci xidma ay sëriñam dégg ci jamono yi nga xam ne sëriñam yu dund Cheikh Banis waaye gannaaw bi Cheikh Cheikh Banis radiyallahu moom Thierno dafa jóg dégg nga. ak ñun daañu koo bàyyee dénkaane dénkaane la mooy lan mooy njaboot gi njaboot gi mooy lan mooy jullit njaboot gi mooy lan mooy yi njaboot mooy yi mooy ñi nga xam ne dañoo war a jàng ak dañoo war a xam waaye xam ne dañoo war a sóobu dañoo war a yegg ci yàlla mooy ñi nga xam ne dañoo war a yegg ci yàlla waaye war a dox ci yàlla dañoo war a ràññee ñett mooy ñi nga xam ne dañoo war a ci yàlla te am na daal topp njaboot boobu ci biir Sénégal ak ci biti Sénégal ñu commencé fii waaye damay wax Mali damay wax Burkina Faso damay wax Niger damay wax Ghana damay wax Nigéria damay wax Togo damay wax Centrafrique damay wax benn réew yi mu lay wax ci nekk kenn toog dafa du benn yoon ñaari yoon danaa sax xëy ci yoo xam ne dafa sillonné fu mel ni Nigéria nga ne kenn xam mu toll dafa wër réew ba mu tas wër réew ba mu jeex amul dëkk boo xam ne euh, kenn toogu fa dégg nga dafa mën ci waxtaan. dugal fa ay junne junne nit ci lislaam waaye dugal ay junne junne nit ci tarixa dégg nga samp fa ay muqaddam xamal nañu yàlla mooy Thierno Sène Deme ci xidma bi nga xam ne defal na ko bàyyi gannaaw bi nga xam ne ne bàyyi làqu teewaayam ci Nigéria man maa lay wax dama nga vérifié fa neex xane ngeen yéen a ci audiovisuel ci journalisme yéen a ngi gëstu gëstu leen ngeen xool dem leen ngeen dox ci tànki Thierno ci biir Nigéria wala ci biir. lii nga xam ne moom mooy Afrique musulmane barhamienne dégg nga mooy Afrique bi nga xam ne Cheikh Oumar Foutiyou radiyallaahu anhu doxoon na ko ak ay jéegoom di sant drapeau l'islam ak lam ci macha allah radiyallaahu taala anhu Afrique boobu nga xam ne bàyyi ñëwaat na fa def fa loo xam ne lu kéemaane la kenn mës koo gis ci àdduna jaxase peuple yooyu ci deret jaxase leen ci bëgg yàlla bëgg yoon ci sallallaahu alayhi ci ñu doon benn benn peuple compact benn peuple boo xam ne benn lañu Afrique boobu doxal ci ci ci loolu gannaaw bàyyi nga xool ñan la fa lan la fa kan moo fa defaat yeneen jéego yoo xam ne lu extraordinaire la dégg nga bu fekk ñeneen dëgg la certes mais tànk yi fa ceeb na dox doo gis keneen ku fa dox dem na ngeen gëstu ji ngeen xool li ma lay wax dégg nga ci tukki quatre-vingt-huit ya quatre-vingt-six ya dégg ba ci ba ci ba ñu njëkk ya ay côté soixante-dix-sept dégg nga xool nga xool tànk yi fa ceeb na def nga xool kan moo ko def moom ci ku weex ak ci ku ko gis dégg ci ci ci yooyu nga xam ne moom la doon traîner ci ay xeet yu wuute yaa ngi dégg ci ay pas-pas yu wuute di leen jël di leen dugal ci islam di leen jox tarixa tijaan dégg nga di leen dugal ci ci fenn doo ko gis feneen kon Thierno ci xidmaal sëriñam ci xidmaal diine gannaaw bàyyi mi ngi noonu waaye damaa laaj kan mooy Thierno Assane wax naa la nee na euh, Thierno Eh, dafa gëmutoon maanaam toog maanaam rek yàccaaral téye say loxo déedéet jamono dafa gëmoon liggéey gis nga avant doomam yi dugg dégg nga fii mu nekkoon ci kër gi ci jamono yu jafe ay années soixante dégg nga ah, fii booba këram gii si mbokk yi nga xam ne dañ daan jóge ko ci àll bi ci biir Saalum du noor si nooraan si dëkk bi ñëpp fii lañ daan nekk soo ñëwee mbooloo mi dafa daan jéggi dayoo léegi ñëpp maanaam ut si xam-xam moo leen tax a jóg waaye am si ñoo xam ne ut si koom-koom moo leen daan tax a jamono yooyu moo doon daluwaay ut takki koom-koom yi dégg nga bu ñëwaat fii nag ba léegi nii faa yooyu dina koy defee daan lay ba ba këram ba ceeb di tooy ba ceeb di neex ci këram booba ceeb ceeb bu tooy jafe na <laughs> dégg nga ci jamono yooyu nag da ngay xool dégg nga gis ay wëtiir wëtiir yoo xam ne dañ daan dem bi ay sareet yoo xam ne dañ daan dem bi ci ndox mu neex góor di jaay yëpp càmm la boole boo xoolee ci bagage ceeb bi 66 amoon na registre de commerce registre de commerce 1966 yooyu yëpp li muy fekkee am na lu muy junj da ngay junj ne nit warut toog rek yaa caalal ak koo mënti doon da nga war a liggéey comme ni nga xamee na comme ni nga xamee ne yoon Thiel Mouhamed def na commerce comme ni nga xamee ne généraux yonent bi Salou Salou yi nga xam ne ñoo ko daroon liggéey <laughs> ci côté boobu noonu joué na ci mën bu am solo te junj na ko te wane na ko te ñaax na ci ndaw ñi dégg nga ci côté social maanaam booy wax social bu mu wax social xam nga doomu aadama ci boppam dañuy wax ne animal social la loolu doomu aadama dañuy wax ne li ko wutaleeg bàyyi ma mooy lu tax mooy parce que dafa social social ñu ngi commencé ci yow góor gi ak jëkkër ji te góor jigéen bi ngeen fondé foyer dégg nga société baa ngay taxaw. ngay fondé foyer famille yi moom fay juddu doom juddu fa société baa ngay taxaw activité yooyu ngeen di mën ci biir di ngeen di loolu mooy activité sociale xanaa foofu la politique jógee mais nit ñi dañu ma noonu teer ci biir këram ci biir njabootam dégg nga xale bi nga xam ne moo gën a vulnérable teer na li mënoon tukkal addunaam dama addunaam mooy mu dégg xale bu yuuxu di jooy dafay dukkal àdduna nekk nañu koo xam ne foog fekkaan da daan concentré ba réer ci biir yàlla ndax da naan fekk mu gëmu rek di di di jooy di jooy fekk mu ngi ci biir yàlla bu doon xëri waaye xale bu yuux bu jooy boobu en général moo ko daan indiwaat léegi ah, la hmm? léegi pour rek ñi nga xamee ni moom noonu la social yoon ndax pour jox la benn exemple bu daw mais boo waxee xale boo waxee jigéen dégg suñu jigéen ñi ci famille famille façon bi nga xam ne ci la ñuy waaye jigéen kër ngay wax ménage te ménage solo mooy waañ bi mooy mooy waañ bi ñun jigéen li ñuy daj ci waañ jigéen ay yaay booy maam booy ñun la nekkee ñoom ñëpp dañuy ci waañ te ñu ngi koy daj ci ne jigéen biir waañam dafa étouffé dafa sonn dafa fatt parce que conditions yi dafa réunir et tout ça benn bés weeru koor fii toog ci mbaar mi mu am kër bu tàng ci laajte li lan la ñu ne ko jigéen ñi ci wàññi mu ñëw xool gis ni jigéen ñi teg ñu leen daal yéen ñi ngeen teg dafa jooy mais à tey dañ seet nan la ñuy améliorer seen condition ci ñu wàññi di fexe ba indil leen yeen yeneen genre façon fuur yu mel noonu te ba loolu noonu ba léegi nii tey loolu actualité la yaa ngi dégg kon ci nu nu sociale yi ci yàlla bi nga wax ba tey ci nu sociale yi am nga njaboot am nga ñooy sa priorité pour ñu doon ko ñu lekk parce que woosee na lisaani bi waalidayhi dégg nga sa doom yii nii yow yaa loolu dundal jabar sax boo ko takkee condition yi mooy dëkkal bi daf cee bokk te dundal nga léegi imagine nga yor yi même dix mille nga war leen ko dundal benn kër dara nekk fa fekk yow joxoon ko ko seen soxna si sax ba muy dem ngay ndabal la ndab ko ci yoonu marché jël dix mu ñëw jël dix jox ko kooku mu dem ñu naan ñun nag du ñu def mu ne tolleen xar yàlla jigéen kooku xam nga xam nga booy wax social wax dëgg fi yàlla loolu loolu loolu loolu mooy social yaa ngi dégg muy ci organisation sociale bi ma la doon wax léegi nga xam ne état sax dañuy wax ne organisation sociale la na daf cee ñawoon ba nga xam ne tey euh, Abdoulaye Wade bi ngay wax 74 bi ñu formé parti boo ko waxoon da nga toog ci état da nga faru daf naan ne yow da ngay wax rek ca la ko ceeb na waxoon ko da nga faru ñoom ñaar nag ñu àndoon ànd ba ci xam-xam parce que Abdoulaye Wade wax ku toogaan ak Thierno Thierno wax ku ko jaaral ci xam ci li nga xam ne moom la war di ci wax ko jaaxal yaa ngi dégg tax na campagne bu mujj nga xam ne élection yi ci parce que moom tamit bu waroon delloo suuf ci la fii ci salle bi mais moom su gañee réew mi université bi nga xam ne moo nekk salle bi Thierno la parce que moom mosut a dajeeg borom xam-xam bu mel ni Thierno yaa ngi donc kon organisation sociale bi politique ak ay économie yooyu. Thierno daf cee nekkoon jéggi dayoo ba sax réorganisation pays bii ñu nekk nii bindoon na ci lu am solo ngeen ko gëstu ji ñu gëstu yi dana am solo ñun gëstu nañ ko mi ngi fii ci kër gi yaa ngi dégg euh, bindoon na ci réorganisation bu am solo ñu ko tëj bi El Hadj Abdoulaye yooyu mais parce que toujours day y a des obstacles ay problèmes de jalousie ak yeneen ak yeneen. donc ci affaire organi réorganisation Ansar moom la ko dégg mais incha allah document bi moom ñu ngi fi waaw euh, dégg comme moom mu jikkoon dayoo mënoon wax ba léegi ci social bi moo taxoon na indi la organisation sociale moom ko gisee woon ñu ko déggee woon te duñ ko daan dégg mu doon ko doy waar parce que même boo doon fekkoon yow anthropologie ci ngay gëstu boo ñëwee ci terme nan la teg ci yoon dégg nga parce que maa ngi fàttali bu doon bés conférence bi ñu doon def fii nii. ci mairie Kaolack bisu Tamxarit dégg nga euh, professeur lycée yu bëri ñëw fa parce que jamono bi ñu ngi lycée dégg muy wax ci cosaanu nit ba ni nit tasaawooyee couleur yi sax wute muy wax lu tax lu tax couleur yi wute di ko expliquer géographiquement ak selon climat yeeg euh, at mi bi ni muy tojee ni muy xotteekoo ci géographiquement et géologiquement dégg nga professeur yi nekkoon na ñu ñëw man kii bii kii fan la jàngee lii nii ban université la génnee waaye moom da doon wax ne mi ngi génnee ci université wa taqullaha wa yuallimukumullah ragalal yàlla yàlla xamal la moom foofu la taxawoo mu nga xam soo wax ci moom damay laaj ci ki nga xam ne tey su ko àdduna trouvé woon dégg nga dégg nga problème yi bëri nekk solution moo tax nekk nii daanaka damay wax ak sama mbëggeel te am na ma ci daanaka sagum mu ci amee mais parce que tellement que dama bëgg vraiment nouvelle génération bi euh, trouver boobu parce que nous avons beaucoup de choses à apprendre si Thiaba beaucoup beaucoup de choses donc kon tey jii dafa mel ni da bëgg a exploiter au maximum te bëgg a exploiter ce pas possible mais euh, il jamais. ñu koy waxee deux cent deux comme lii incha allah première fois la danaa fi une deuxième fois une troisième fois certes danañ am kontaan sax wax dëgg fa yàlla ànd ak yéen benn recherche boo xam ne dañ koy topp ba ñu joxe ay firnde yu intéressant ci xam ceeb nag loolu je dirais pas parce que euh, am naa tuuti naa ci xam parce que Thierno profil bi nga xam ne moom la présenté man aw may bagage bu mën a dugg ci biir Thierno xam mais ñun fexe na dellu suñu bët fexe dellu suñu xol ba ñun mënatuñu woon sax gis ñu dégg keneen ba léegi nii wax dëgg yàlla kenn mënuñoo impression ci xam-xam kenn mënuñoo impression ci xam-xam waaw sama relation ak moom nag man wax dëgg fa yàlla comme adolescent yëpp ah comme yéen comme ñëpp da toll foo xam ne tey sama bëggeel ci Cheikh day naan ay waay su ma dajoon ak Baye waay waaye ana Baye ana Baye question yooyu ngay posé sa bopp man ci laa nekkoon ba gis Baye dafa benn yoon yoon ba gis ko muy sotteeku ceeb ba bañ a waaye chaque fois boo gisee noonu damay ñëw wax ko ko ah, waxal alhamdulilah ko man dama bëgg a jox ma noonu la ma ci fay tàmm fan waaw eh, askan bi tarbiya man doom yi. Cheikh Abdou Baax yi Cheikh Habib Kabir mooy doom yi mag yooyu ñoo yemandoo fii ci kaw ñu ñooy nekk dégg ñu ci lañ ci lañ ànd ñu jëkk yi ba bët bu set ñuy gën di yéemu ci ter ñoom doom yi waaw suñu ci si daara ji dañoo dem école école française doom yi ñoom jugee nañ si daara ji dañu ci école arabe jaaree dégg nga mais suñu géer yëpp suñu waxtaan yëpp waxtaan ci maarif billaay la ak waxtaan ci xam-xam nga à chaque fois nag bi yenn questions yu posé rek bu ñu ñëwaat rek moom day xam ne ñëwati nañ bu ko defee dafay kontaan mu daal yi ñëwati nañ de ñu daal di allah euh, ba tey foofu benn parenthèse rek euh, ñun dañ doon jàng tubaab dégg nga ñii ñi ngi def série yu wuute yaa ngi dégg xam nga kooku ci nekk fa ngay gisee ak fa ngay jàngee. buñ dajee nag ku ci nekk indi li nga jàng yooyu nag bu ñu ci jàng mu joxoon ñu parce que moom a kéemaan professeur yi ñuy en général sax ñun dañ naan impressionné suñu professeur dañ naan mu euh, euh, ngi def seconde déjà mais tey tamit bu ñu doon def. Euh, Euh, nekk place mu def la kay gëm muy jàng ay texte Platon ñëw indi ñu ko ba ñu ngi fii ci bunt école bi fu ñu daan foree mu toog indi ay texte Platon commencé expliqué ma dégg nga expliqué ma ne ko yàpp yow arif bi da ma ne ko arif bi mu commencé expliqué ñu gën ci Platon ma gën a gis ne arif bi laay ba ma xaati arif la li ngay wax nii lépp xam-xam yàlla ñu daal di ñu comme ni ñu daan defee comme d'habitude ñëw song jàng ñu ñëwee commencé wax mu jóg nañu kooku arab ñu koy wax aflatun nañu kooku am sikk na arif billahi la woon kooku ci wulu yàlla yu mag yi la bokk kaana xutban sax la ñu wax ne xutbu la xam ne vidéo bii ñuy def dana ci internet bi ci réseaux sociaux bi nit ñi dinañ ko déglu te dana posé polémique mais maa xaar maa ngi maa ngi maa ngi xaar ngeen xam la sëriñam nekkoon Socrate le père de la philosophie hmm? kooku nit yàlla la dégg nga Thierno Sandek ci année yii ci vingtième siècle ñu taxaw fii wër ñu nañu kooku ci biddiw yàlla yi yaa ngi dégg benn benn ci yi nga xam ne bakkaar loolu mujj nag indi polémique bu garaaw indi na ko polémique bi dem na ba lycée ba ba lycée ba professeurs yi professeurs yi lycée ba philo yooyu sax saa eh, tool yëpp yëpp na coono rawatina nag dëkk bi nga xam ne ci la nekk parce que étudiants yi wuute liñ jàng nañ fee nekk dégg nga li ñëpp ñoo partagé woon loolu mais mu doon combat boo xam ne ñu ko porté te ba léegi ba léegi ñu ko ñu ko porté moo wax la ne la eh, Mawlana Cheikh Sine radiyallahu anhu moom moom ko doyoon waaw comme ni nga xam ne moom su daan waxtaan dafa bëggoon yàlla ba bëgg nit yàlla yi bu daan waxtaan ci nit yàlla yi dañ daan jox ceeb dañ leen ko tudd benn xur bu nekk lay xis sax ba mu yàgg mu ne la ku doyoon waar ci wilaaya waaye Thierno noonu tukul woon bàyyi ku doyoon waar ku doyoon waar di moom xam naa bi ñu ñëwaat beneen yoon uniquement si jàmm ak sa benn émission bu yaatu gën a yàggal jotaay bi. yéen a xam jafe-jafe bu bu njëkk ak jafe-jafe bu mujj yëpp di leen encouragé ay ndaw ngeen bu mu ko waxee woon li gën a am solo mooy ñaanal leen yàlla yàlla bu seytaan am jëm ci seen yoon yàlla leen dëpp leen dëppale seen xel ak seen xol yi yàlla na yàlla leeral seen dund yi yàlla na yàlla ubbi leen yàlla na yàlla niital leen yàlla na yàlla dimbale leen yàlla. problème bi jàpp ci seen loxo loxo ndimbalam bi kon leen jotul yërmande daal li ma leen wax daal mooy noonu la ci kaw ci kanam lii di def nii moom mooy leeral ëllëg li nga xam ne moom mooy humanité dégg kii jar a gëstu dañ man de pare naa incha allah accompagné ñu ci chaque jour bu soobee yàlla dañ ko defal benn thématique rek nga xam ne dañuy am yoon dégg nga topp ko incha allah ba téye lu dëgër parce que loolu laa bëgg ci càmm.